sélection bu métti toll nañ nag ci ñaar fukk ak benn artiste sénégalais yi war a représenté mim réew ca juróom-ñeenteelu édition bu jeu bu francophonie fële ca Kinshasa mu di nag ay compétition yi ñu a amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet jëm juróom-benn fan ci weeru août. mooy ci wàllu coono ak aada nem délégation fanweeri ak ñett ñaar fukki ak benn nekk artiste yéen yéen tegee nekk ñoo xam ne mooy wàllu ñuy teewal nguur gi wàllu waa mi Sénégal ak ak journaliste yi nga xam ne aussi ñooy dimbale ba ñu mën a xam li fa xew dañu ko woon bés bu yàlla sàkk ñoom ñooy dem toogal fa Sénégal ci fan yooyu. bu ñu sukkandikoo ba tey ci jëwriñ bu yor wàllum culture état bu Sénégal nag def na yëfam lépp lu tukkee ci cotisation yi hébergement yi ak yeneen dépenses yi lee. la ca war aussi ci ay matuwaay président santaane woon ñu jël ñu yëy matuwaay yëpp ba lañu ñu war a joxe ci koppar pour seen dëkkin foofu seen dundin. ak la nga xam ne ni la ñuy soxla ci sérité président moo ci teg ne jox ku nekk yóbbal goo xam ne ni boo fa demee doo mën a jànkuwante yeneen jafe-jafe seen mën a daal di ñëw lu aussi dajal nañ ko ba man na sëkk dañ leen ko jox tey ji ba lu ñuy def événement bu gën a mag ci jongante sportif ak culturel jeux yu francophonie yi nag di jege si bu baax ay artistes naka noonu ay sportif bàyyeekoo ci juróomi continent nag nar nañu rek ñëw ngir teewal seen réew fii ak fukki fan.